kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun suñu yoon daane ci ndey bàyyam bàyyi yonent bi sallallahu alayhi ma yonent bi moo nu gën ndey ak bàyyi ma ne Sénégal maanaam ñu c'est grave comment un imam peut traiter de ce point nit nit xale bu jigéen bu ñu xamul ndeyam ak bàyyam hmm. c'est que Sénégal moom dañoo yaakaar ni jigéen moom tëddoo ko rek ak liggéey loo ko la ci kër. Mhm. bañ nañ ko sax bu ñuy tagg jigéen lañ koy taggee mooy nangu gum nangul jëkkëram. voilà mooy lay ni ñuy wut naan way liggéeyam day añub doom ba ba ko caaxaan yooyu. Eh, yi mbokki réew mi ak fu ab nekk ñu ngi yëkkat suñu kàddu boole ko naqar woo xam ne jàpp nañ ne kàddu yi ñu mës a dégg ba ngeen tax ñu ñuy àddu suñuy kàddu. di naqarlu loola wallahi naqar wii ñu am tey di àddu ci kàddu yi nga xam dégg nañ ko mu jóge ci Moustapha Jaxate jëm ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi waay juróom ci waxin wu ñàkk teggin ñàkk xorma fu ngeen mës a déggati fu ngeen mës a dégg bokk ñu yëkkat suñu kaddu ñun waa AIS di naqar loo xam daanañ ko teg ci mag ñu baax ñi moo xam xas la moo xam ŋàññi la moo xam tuumaal leen ba tax ñu suñ kaddu kaddu yii nga xam ne tey Moustapha Diakhaté yëkkati na ko ci benn palaato di joxe exemple ci way juróom ak way juróom yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi duñ ca jaar duñ ko déglu yaakaar naa ku dee ci marché ya tàgg sa bopp léegi lañ ma envoyé vidéo bi seetaanu ma ko woon sax waaye léegi daa ko jot mu ngi tasaaroo ci ñekk teggin goo xam ne kenn mënu la ko wax ci kaw suuf naam ci ginnaaw gis nañ fi koo xam ne doon na wax bay tudd naan yonent sallallahu alayhi wasallam ay waajuram ña nga sawar wala yas billahi taala waajuramu góor boog maanaam kii nag wala yas billahi taala ndax sawar moom yàlla ko yor àjjana yàlla ko yor waaye kii li mu wax moo gën a day waar moo gën a nekk insulte moo gën a nekk xas moo gën a nekk ŋaññi ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi koy naqarlu di ko ànd képp koo xam ne as toq mbëggeel nekk na ci sa xol jëm ci yonent salaam waxuma la ak bagaan ak stock laa wax ñu ngi ànd ak yow di naqarlu kàddu yu ñàkki teggin yu ñaaw yu doy waar te li ci gën a yéeme ci waxtaan woo xam ne muy diggante li fi xew fan yi ñu koy wax maanaam coow li xew fan yi ci wàllu euh, viol wala nangam loolu lan moo ci yóbbu exemple yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga cey joxe joxe nu ñàkki teggin xanaa kay loolu ku cey wax ku ne danga war a jàjji danga war a indi loo xam ne dana tax nit ñi moytu lu mel noonu waaye déedéet nga ne nga ne faww nga wax faww nga am fit faww nga dëgër inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi ñun ay AIS ñi ngi ànd ak jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ci adduna bi di naqarlu lii nga xam ne benn mbokk ku ñu naan ab jullit la la ci gën a doy waar mu ne ci waa kër Sëriñ Tuubaa la bokk yëkkati kàddu yu mel nii nga xam ne Sëriñ Tuubaa lim kañ yentu sallallahu alayhi wa sallam ak lim ko tagg ak lim ko wax ab taalibeem kuy woote ne ab taalibeem la ñi may ñëw yëkkati kàddu yu mel nii jëmale ko ci xaq yi way juru yentu sallallahu alayhi wa sallam ba koy misaal ak yi way juram wal yees billahi taala mbokk yi lu gën a doy waar lu mel ni amut ñu koy wax ne ko na tuub deltuwaat ginnaaw na tuub deltuwaat ginnaaw na tuub deltuwaat ginnaaw mbokk yi yàlla bu ñu yàlla jàppe li nga xamee ne ñu gën a doy di ci ñun